wa man saada suurata ku dolli aw saar fii tey ni ca ñaari rakk yu mujj ya nga xam ne faatiha rek les ca war a jàng waaye yow juum nga ba jàng faatiha dolli ca aw saar ca ñaari rakk ya ca benn ba mbaa ca ñaar yépp ku jëf loolu fala sujooda alayhi ab sujoot waru ca xabla ab sujootab baxda waru ca sujootab ginnaaw sëlmal mba sujootab lu jiit sëlmal waru ca julli gu nekk nag ñaari rakka yu mujj ya mbaa benn rakka bu mujj ba lañ fa santaane faatiha rek nga fay jàng faatiha rek nga fay jàng ku juum ba jàng faatiha dong teg caw saar tamit la nga def dara waru ca ca xeeti sujjóot yaak defar ya du yàq julli ga waman samiha ku dégg sikra muhammadin turu seydina muhammad te bi koy dégg yaa ngi ci sa biir ak julli kooku dégg seydina muhammad ñu tudd aw turam alayhi wa seydina muhammad moomu yal ko yàlla dolli teraanga ak jàmm te waxoo bi mu koy dégg moom jullit bi fi mi ngi ci biir julli gi fa salla alayhi mu daldi wax sallallahu alayhi wa sallam daal di julli ca yonent ba ndax tur wi mu dégg kooku fala saya alayhi dara waru ko ca du yàqu julli ga sawaun ñoo yemoo képp nag moo xam kaana saahiyan ba mu koy wax dafa juum wax ko rek aw haamidan mbaa moo ko tey wax ko aw xaa iman mbaa bam koy wax ma nga ca jamonoy taxawaay ci julli aw jaalisan mbaa ba mu koy wax ma nga ca jamonoy toogaay ci julli ga loola dara du ko ca war du yàq julli ga wa man qaraa sooratayni képp koo xam ne jàng nga yaari saar yu tegaloo fa ak sara mbaa ëpp yaari saar fii rak'atin ci benn rakka yay ami saar nga jàngandoo ca yaari saar mbaa ëpp yaari saar te loolu yëpp yaa ngi ko jàng ci benn rakkaa waahidatin bu di benn aw xaraja mbaa nga génn min sooratin ci aw saar illa sooratin dëgmal beneen saar bàyyi yow nga doon jàng te eggut nga bàyyi ko fa commencé waat beneen saar aw rakaha mbaa sax nga far bàyyi njàng ma mépp nag jàpp say oom xabla tamaami suurati lu jiitu saara way mat ku def loolu lépp fala saya alayhi dara waru ca te du tee julli baax fii jami saalika ci loolu ñu tudd yépp ab sujootab defar newu ca waru ca sujootab yokk mbaa sujootab wàññi waru ca bàyyi na foofu man asaara képp koo xam ne junj nga junj fi salaati yi ci ak julleem junj mooy liyaar mel ni ngay julli ni taxaw ne la ana moor mi ngi ci biir nga joxoñ sa loxo ne ko mi ngi ci biir waaye sa loxo rek nga joxoñ sa ginnaaw ana mudu dem na nga joxoñ sa loxo ca sa kanam di ko won ne dem na wala demagut ana Mansoor demagul nga dag dagal sa bopp daal ne ko on won ne ko demagut ku def loolu lépp ci julli junj yooyu yaa ngi def junj ga bi yad ci loxoom ma ngi ko def ci loxoom moom jullikat ba awras yi mbaa ma ngi ko def moom junj ga ci boppam yooyu junj yépp te ba nga koy def yaa ngay julli falaasa yàlla yi dara waru ca te julli dina baax waa man karara képp ku baamu muy jàng ñaari yoon ci benn rakka alfatihata fatiha nga jàng ko ñaari yoon ci benn rakka saahiyan ngir juum sajada baxda salaami su jootal ko ginnaaw salmal ndax yokk nga ca julli ga wa in kaana bu dee jàng nag ma nga nekkee xaamidan cik teyeef fa saahirul butlaanu fës na ne julli ga yàqu na kon faatee ci julli benn yoon lañ koy jàng ci rakka boo ko defee ñaari yoon cib rakka te tey ko juli ga yàqu na wa man tazakkara suurata ko fàttaliku ne jàngoo woon saar ca ginnaaw faatiha ca rak ba nga ko waroon a jànge jàngoo saar wa faatiha ja dong nga jàng waaye nag ba ngay fàttaliku ne jàngoo saar wa mooy ba da in ina ginnaaw ba jullikat ba yayaarloo di jàpp cay uumam la doog a fàttaliku ne jàngul woon saarwa te yayyaarlu na ma ngay dem moom jullikat ba ilaaru ko yi dem di jàpp ci ay oomam fala ko fàttali koo su boobaa falaa yar ji bu mu dellu ginnaaw ilayha di jëm ca taxawaay ba nara jàngi saar wa ndax su boobaa yaa nga dëgmal farata nara arrière di demaat ca sunna wéyalal sëg julli te tëb saar woowee tëbal saar wa te jàpp ne wàññi nga boo jullee ba julli jeex nga taaye ba taaye jeex bul wax asalaamaaleykum de sujootal yeneen ñaari sujoot muy lu jiitu salmal xabla salaam toogaat taayawaat ba taaye jeex nga wax asalaamaaleykum julli baax